CLD bi nga xam ne Serigne Ousmane moo ko àndoon ak sous-préfet bu Ndaam ñu taxawal ko ak Serigne ci fa ne jóge fa dem CDD ci Mbakke ba ak si njaareem nga xam ne maa ko àndoon ak gouverneur ak mboolem ñi ko àndoon ñëpp kon ñu ngi lay delloo ab nuyu ci turu sëriñ bi. maak délégation bi nga xam ne ñoom laa àndal ñu di ay kilifa tàmbulee ci waa majlisu tuura bi nga xam ne ñoo seq kuréel gi nga xam ne saytu màgg bi di ay kilifa yu mag yoo xam ne expérience ak seen taxawaay ci yoon wi tax ñoom ñëpp ñu ne ci biir ànd ak kuréel gi nga xam Serigne Ousmane moo ne ci bopp ba ànd ak mboolem commission yi nga xam ne ñoo seq biir kuréel gi kon ci turu sëriñ bi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen sant di gërëm ci jataay bii nga xam ne ñu ngi koy defaat ci waajal màggal gi kon wax ju du gudd ndax màggal gi moom ñëpp xam nañu dayoom ñëpp xam nañu ni mu toll li jëm ci wàllu détails yi fi liggéey bi toll nag bu gouverneur jàngee rapport ba noppi Serigne Ousmane dana seq ak mboolem ñi nga xam ne service bi teew lu ci na fañ ci toll ak avancement liggéey bi kon dañ lay yóbbante nuyoo sëriñ aw cantam jëme ko ci président Macky Sall di ko yóbbante cant ak ngërëm ku bàyyi ko ci sëriñ bi ndax wax na ne bu mu fi toogee ba nëgëne lépp loo xam ne lu ma a bàyyi la ci moom di yittee njaboot gi yitte dëkk ba def na ca ba def ca lu mënut loolu nag kon bu yàlla defee ñu dem ba toll fii ñu ngi koy seeralaat ak cant ak ngërëm lu wóor di gën seen diggante na ko ko waxee woon ci làmb ñoom mu dégg mu ne ko li baa ngi noyyi rek kóllëre gi saa su xëy du yokk waaye ko wàññi te wax maa ngi lay ñaanal loolu nag kon cant ak ngërëm la ak mboolem ñu mu ko seqal ñépp di ay ndawam yoo xam ne moo leen jox ndigal ñu du ko liggéey ci liggéey bi ba di ci benn sa cantu bopp ndax ni ma la ko waxee bii ci biir bureau bi rek maa kilifa yi ma àndaloon ndax njëkkoo fee toog waaye ba nga fi ñëwee ba na gën taxaw nga ci ñaari taxawaay ba ci jëkk mooy fi nga toog yilif ministère bi ministère bi yaakaari yëpp ngay jokkoo ñoom mu aju ci yow waaye xam gi nga xam ni yoonu murit ba noppi bokk ci te fonk ko lool bokk na ci li waral bi nga fi ñëwee ba nagani liggéey bi gën naa yomb ci ñun lool seere naa la ko ci biir te noonu la ko seer la it du seere soo xam ne rek waxee rek gën a digg naaw la ndax lii de yëfi Sëñ Tuubaa di yëfi yoonu murit lu ci waaye jëfut rek loolu la ko yéene yéene cant gi mënees naa maandu waaye ak cant lu ci mën a am gis nañ ci sa xër gi ci sa pëlseef gis ci sa taxawaay boo xam ne ñëpp seer nañ ko kon léegi lay ñaanal ci barkeb Sëriñ Tuubaa yaa ñu ko seqal ñëpp liggéey bi ngeen ci def yàlla na Sëriñ Tuubaa leen ko te bu leen ko nangulee rek incha allah bu àndee dogalu yàlla saa su ngeen xëyee rek lu ngeen dëgmal rek day gën a yomb ci di fàttali rek màggal yi ndax liñ ci waxaat tuuti lay doon. ndax màggal Tuuba day xew-xew bu màgg boo doon xool waxuma ci Sénégal waaye ci àdduna xew-xew diine wala benn xew-xew boo xam nu ma juróom million wala lu ko ëpp dana fa daje bariwul ci àdduna kon loolu xew-xew bu tuuti lépp it fees dell ak njëriñ te la ci jëkk nag mooy jaamu yàlla gi nga xam ne kii borom bis bi moo ko ci santaane jaamu yàlla nag firiwul ne jullee gu war rek mooy jaamu yàlla jaamu yàlla mooy lépp loo xam ne jaam bi bu ko defee di ndigalu borom wala mu di ca sekk séntu payoog yàlla rek loolu jaamu yàlla moo tax taalib yi ñun taalib yi koy def yëpp itam ñu di jëf séntu payoog sëriñ bi nongul gi ko suñu borom nongul nag moo tax mu dem ba agsi fii ba àdduna sépp ñu di Sénégal sax bari na ay réew yoo xam boo fa wàccee tey xam nañ lay màggal Tuubaa kon nag loolu na luñ ko rek war nañ ko fonk lu këpp ndax ministère bi junj na ko léegi ci wàllu xayma di xayma yu wóor yoo xam ne ñoo ko def sa bokkuñ ci biir yoon wi waaye lu toll ci ñetti at wala ñaari at genn wàll bi ñu ko mujjee xool li nga xam ne nguuru Sénégal dana ko ci jëriñoo muy dugg ci ñoom mën na deux cent cinquante milliards kon loolu ko xew-xew boo xam ne te li ëpp ci fet dañuy wax ne bu accès day nërmeel économie réew mi màggal Tuubaa nag day yëkkati économie réew mi kon nag jàpp naa ne luñ ko gën a waajal rek ak luñ ko gën a fonk rek lu mu rëy rëy rek fuñ ci àgg rek wees loolu dayub màggal gi moo toll noonu dayub dëkk bi moo toll noonu la ca des it muy dëkku Tuubaa dëkku Tuubaa itam day dëkk boo xam ne ndax waxante dëgg dafa baax ndax lépp dañuy raay raayal rek ndax ñi fi nekk ñëpp fi nekk ay jullit fi nekk ñu dut ay jullit ñoo fi nekk waaye am na loo xam ne ñëpp maase nañ ci xam ne réalité la mooy Touba ñëpp xam nañ ne bu Ndakaaru jàlle mooy dëkk bi gën a rëy ci Sénégal am nañu gàllankoor rek ndax gàllankoor mooy li xew ci Sénégal mooy ñàkk a maandu ak ñàkk a waxante dëgg ak raay raayalante ndax fu ñu tuddee Touba rek ñëpp dañuy jàpp ne Touba dëkku Touba dëkku sëriñ la boo xam ne la jëm dañ ko war na ci dëkkub sëriñ loolu nag moo dem ba indi jafe-jafe yi waa Touba di dund ndax wax nañ ko fan yi directeur bi yoru wàllu assainissement xam ngeen ne état bi diggante ñetti at yi def na ca effort yu baree bëri ci assainissement loo xam ne mës am te liñ koy def def moom ci boppam wax na ne lii tax tuubaa assainissement bi baax ba mel na bëgg dana ëpp 150 milliards kon loolu li ko indi mooy tardement bu métti bu am ci dëkk ba loolu nag li ko indi mooy bu ñu bëggee natt Touba ci jamonoy Senghor nga xam ne Touba motutoon sax dix mille personnes nga bëgg natt ci Touba gi mag ñaari millions nit bëgg ko xayma ci dëkkub diine day indi gàllankoor loolu nag li ko indi day dëgg goo xam ne dañu ko war di wax mooy fuñ dañuy jàpp ne lu ñu def Touba dañ ko war a def te loolu du maandu ak maandu mooy dëkk bu ne lam yàlla nga jox ko ko suñu saaliw daana wax ne suñ Tuubaa nee na ak maandoo di ko mi ngi tàmbalee ci yamale lu yàlla wut kon boo fekkee dëkk boo xam ne genn wàllu dëkk wala kaar ba boo ko doon natt ci beneen dëkk du ko mat nga bëgg loo def fee def ko fële di indi jafe-jafe loolu nag day dëgg goo xam ne jaadu na ñëpp bàyyi ci xel te sóoraale ko te day bëgg indi jafe ndax day mel ne dañuy jàpp ne lu ñu rek mel ne kuy kujje la te kujje amu fi ñëpp ay Sénégal lañ ñëpp tolloo ay droit ñëpp tolloo ay àq ba ca desaati mooy màggalu Tuubaa gii màggalu Tuubaa ñëpp xam nañ ne dafay daje ci nit genn wàll ga dajewut fenn kon loole itam bu fekkee dañuy bëgg lu ñu def Tuubaa defar ko feneen loolu itam bu fekkente ne ak maandu lañ ci jublu mi nga bëgg indi gàllankoor ci waa Tuubaa loolu itam kon lu mat a bàyyi xel la loo xam ne nit ñi dañ koy jég di jàll rek kenn du ko nangoo wax waaye buñ ko nangutoo wax itam waa Tuubaa ngi ci bëgg a dundee gàllankoor ak natt yu métti yoo xam ne mi ngi bëgg ak fa xam na deew ndax dëkk bu na tubaa ku fa dëkkee xam dëkk bi nam toll xam la fa war da nga xam ne mboolem ñu koy xalam xaymaale ka natt rek day mel ne xamuñ dëgg-dëgg la Tuubaa toll te boo doon natt ci wàllu saaxir yi ñi nga xam ne dañuy investir ngir bëgg gañe fi sansa ku ci ne rek la ngay def ci Tuubaa doo ko def ci benn dëkk ngir ñoom xam na ne lu ñu fi def mu dellusiwaat loolu nag kon bu fekkee état bi nga xam ne dafa yilif ñëpp war a tolloole ñëpp itam tolloole gi fiiriwut ne loo def fee def ko fële waaye fu ci ne la fa toll la jaaru ci ay nit di réalité da nga ko fa war a matal sëkk loolu nag day loo xam ne lu yàgg nekk bu yëg-yëg la ci man mooy loo xam ne itam lu war a génn ci biti la yéen nag taxu leen ko jug ndax li taxu leen ko jug yéen yéen fi nekkoon ba yàlla def ngeen ne ci waajtaay war a dem waaye kon kuy ñëwaat na sooraale ne Tuubaa dëkk la boo xam ne la foor bari na lañ fa war a def beneen te asakay lañ fa war a def defuñ ko fa kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf euh, bi ci wax ju am solo euh, yi nga wax yëkkati ko jëmale ko ci fàttali